violence ba bari na ci am na ci koo xamante ni promoteur bu leen sànni xeer sax nee na dëj sax léegi dañuy dem di di direct moom presse bi moom lépp. dañ waaw xam nga kooku moom suñu papa la Gaston duñu ko duñu ko wax dara parce que jili man wax naa la kër nee la. ñun duñu toog mukk ci logique ku ñu xas xas la. ku ñu wef nangam ñoom mais nag. on sait bien se mm-hmm. mu taxawee ne bu bu bu leen ñëw suñu làmb ànd quoi ñi amoon jom te am fulla te am personnalité bàyyee nañ ko fa ak làmbam tey la preuve sit ya nekkoon ay partenaire ca làmb ja bañ fa demee dañ leen yónnee ay ay ji sene wooba ngi nii mënatuñ def direct te pourtant waa ITLP yi ñëw leen jël en partenariat ak làmb ji mais tey mënatuñ def direct parce que yónnee nañ leen avertissement ba yónnee ci ñu ci ñu ci bokkul ñoo xam ne sax seenoon yoon néew ci daa mel ni tubaab ba yor plateforme bi daal ku mu gis sa sit nga def direct à nationale rek mooy la kàccit mm-hmm. def nañ ko Mass SBT. Mm-hmm. def nañ ko caam bu euh, Sénégal Buzz deux cent vingt et un mm-hmm. donc yooyu ay dérive la yow yaa ngi lancé investissement te ki nga koy lancé xamuloo ko yow jotuloo xool sa produit dama wax ni Gaston ñu wooyee ci table waxtaan. ñu ànd ak moom amuñ ci benn problème. su taxawee ni ñu bu sama làmb ñu am fulay bàyyi ko ak làmbam mm-hmm. man buur foofu laa taxaw te j'assume duñ ci xuloo duñ ci xeex jaru ko mm-hmm. on peut faire leneen lu la waaye ku xool jamono jii nag mm-hmm. xam ne làmb ji nii mu géeyee nii xorom si ak la koy jaay c'est la presse en ligne parce que ñu ñooy dem di jëli mbër yi ci entraînement yi. Mm-hmm. ñooy dem ci face to face yi. Mm-hmm. ñooy dem ci open press yi. jiir dama ne bu doon làmba tax Dakar ak di ma fay dàq nañ ma. dañu jàpp ni que ñun la presse en ligne bi dañu am ay millions yu dul jeex. Mm-hmm. juum nañu di nga dugal benn vidéo combat mbër bu def huit cent mille vues. fenn mois bu jotee AdSense du la ci fay trente yu mag. ñi nekk ci YouTube ak di ci yëngu xam nañu li may wax. barke alxuraanu karim Ibrahima fay bi gëree plateforme lamb bi gën a Sénégal Lutte TV bu dul woon ak business si boppam ay système perpétuel nangam naam kon du am lu mu fayee ay employé kon na gars yi dal ñun ñëpp ay citoyen lañu parce que damay bañ wax ñu ñu titre ma ni buur géwél clash sévèrement Gaston wala non non. clash suma kenn damay wax suma pensée. suñu génnee ci làmbam. ñu bàyyi ko ak làmbam loolu am nañ ci droit. waaye nag lépp lu mës a dugal loxo moom Gaston fekk nañ ko ci même en dehors de mhm. lu mës a dugal loxoom rek fekk nañ ko ci mhm. Balla Gaye Sénégalais la booy ñaar Sénégalais la Bombardier Sénégalais la mbër yëpp ay Sénégalais lañ mhm. promoteur bi Sénégalais la moom moom produit sañ na ko jaay ku ko neex ñun lañ ci doon yëngu ak di ko ci sonn di un droit à l'information su taxawee ne maamoom sama yëf bu leen teg tànk sama làmb ñu bàyyi ko moom mais bu mu ñu ci xas bu mu ñu ci wax lu ñaaw keroog interpellé naa ci le président du du CNG Birasène wax ko le Ba am personne ne ko yaa ñu woon fii ci kaw nañu làmbkat dama leen ci yaakaar ci ngeen defar ko fan yëpp ñu ngi subir ay attaques waxuñu dara le président du CNG woo naa ko téléphone am une fois ba envoyé ko texto keroog bi ñu demee ministre bi ñu fa tasee ministère wax naa ko nee naa ko monsieur le président woowu la pour ñaan la dépasse woowu ma la pour ñaan la xaalis mm-hmm. woowu ma la pour nekk sa xarit da nga jiite benn structure de comité national de gestion de la lutte mm-hmm. man ma jiite benn association moom c'est les reporters euh, euh, euh, de la lutte en ligne mm-hmm. donc su ma la oowee wala mu messager parce que dañuy aller dans la dans le même sens mu ne ma dëgg la kay nangam nangam expliqué donc il faut ñu joxaat ñu suñu gëdd ñun tamit promoteur bu tëgg ñu ànd ak moom liggéey ci bésam ba mu jàkk waaye wallaahi barke alxuraan promoteur bu taxaw nañu bu leen teg tànk sama làmb wax naa ko keroog de sit ya ma déggaloon da leen tere na da leen tere dund lu liggéey ngeen ba mu jeex mm-hmm. mais ña ci demoon wañaarante teg nit ñi am na ñoo xam ne bu ma leen woon dañ ma ne non mais buur ku ci nekk sa intérêt ngay xoola hmm. léegi intérêt boobu tey lan la leen jural ñu envoyé la ay ay yoo xamante ne da ngay mujj retourné après jël téléphone ne buur waa mais buur doo dimbali ku ko ci def ci làmb Gaston bu la avertir ba ñu tëj sa site su ñoo nekku ci.